الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي أمي إنترنت بأسوسياسيون أن تخو نيويري دي تي في باي باب نيو من يلين دي نيو فلن دان نيو تاي نيو في تي ديوانو بوتي مباو سيتي أجا ماري تي بن ملات مانتال بو خمنتني ووان نيو تي موم أي جامانو تي جيناو تي بير نويت بي موي خوص تي تاو بو متي دم فكو كو فينغا خمنتني فلا نك jël ko ndax signalé woon nañ ñu ko xamaloon nañu ñu dafa feebar tawat bu metti waaye comme association taxawu ñu di mooy solution malade mentale yi bi ñu ko jëlee teg ko ci oto bi yóbbu ko sang ko defal ko entretien yóbbu ko hôpital ñu gis ni amee na stabilité. wax dëgg yàlla taxul woon ñu xam ay mbokkam ndax làkk bi muy làkk ak ñun bi ñu dégg wuute na li ñu jotoon a xam ci aw turam rek moo di Ziggy la tudd ginnaaw si loolu ñu daal di koy jël amuñu fu ñu ko yóbbu. ñu daal di koy delloo siwaat fi ñu ko jëlee woon mu nekkoon loo xamante ni lu ñu metti woon la trop waaye yàlla mi dara tawul bi ñu jëlee vidéo bi lancé ko ci réseaux sociaux yi ay mbokkam feeñ wax ni ñu ni ñoom ñi ngi dëkk fële ca Wakam fi nga xamante ni moom mooy cité avion kon ñooñu nañu xam ni seen mbokk moomu noonu association bi jógaat na pour indil leen ko seen kër

ñu ni duñu bayyi mu sedd dañuy dem wëri zigi momu nonu jël ko yobbu ko hôpital ñu defal ko li nga xamanteni ni lañ warlo ak mom su ko defé ñu jëm ko jël yobbu ko wakam wër ay mbokam buñu gisé ay mbokam ñom ñu téy seen mbokk ñun ñu leen taxawu leen ci lepp lo xamanteni mën nañ leen ci accompagner ta yalla rek tax tay di guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yëpp diko fété ngir bis bu mag bi nga xamanteni ni duñ ci noppalu malade mental yee sunuy mbokk moo tax fu ñu nekk dañuy fexe lu leen bégal naam bégal leen yombul waaye ñu fexe ñuy regg di fexe ñuy set ñuy fexe ñuy lekk te yàlla tax tey ñu ngi ànd ak si le terrain ki nga xamante ni moom mooy yaa Adama seen jàmbaari gaynde fàkk tëdd ji ànd ak ki nga xamante ni mooy Baye Pathé Souma ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Samba Camara ak ki nga xamante ni moom mooy la troisième dame di Ndiémé Cissé di bébé d'amour ñu fas yéene wër ki nga xamante ni moom moo di euh, ki nga xamante ni mooy la deuxième dame di soxna Ndiémé Cissé ñu ànd ak moom tey sur le terrain kon tey ñu fas yéene bu dem wëri Ziggy ba gis ko ngir jël ko yóbbu ko su fekkente ni information yi ñu jox moom la ci boppam moom Ziggy la bu ñu ko gisee dinañ ko yóbbu hôpital mais su fekkente ne information yi ñu jox beneen malad mantal la tamit dinañ jël malade mental boobu yóbbu ko opital kon dañuy dem sur le terrain wër ko daal di koy ñu ko gisee di ñaan yàlla na ñu yàlla wanaleeg moom ci jàmm bañ mën ko jël yóbbu ko hôpital te yàlla rek taa association taxawu ñu wéré di membre yi nekk ci diaspora bi ak Sénégal ñëpp bi ñu yëgee nouvelle bi dafa mel ni seen mbokk la dal te walaay seen mbokk la dal kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm àndandoo ak yéen sur le terrain yal nañu yàlla wanaleeg Ziggy ci jàmm ba ñu jël ko yóbbu ko hôpital salaamaaleykum wa rahmatullah Genema, sama Birka, sama Birka, Mark, sama Jabo, Takala Mark, sama family. No Lomo Gode Gode, Timbade my life and Nana. Say Yalla, Wai Waka Sekha Yalla, Te Khamne Ulak yaman Khiyam jëf ju baax rek ay tax nga jàll yow mi ma liggéey ba ma dof toog sa biir kër ut sa njaboot te doo dox ba xoof maa ngi ni torox def la ay mbokk ndax feebaru xel gi ma yàlla teg tax ñu beddi ma génne ma seen biir ma nekk ci mbedd mi di dox yeneen allée yow li lépp yaa ma ko teg maa ngi ni xamatuma lu nëpp wala lu faax lu nekk wala lu jub yow sama waay lii Alors Ziggy, ça va Il faut essayer de parler avec nous. Parce qu'on nous a signalé que vous avez une jambe cassée. Ziggy, ça va Tu as une jambe cassée Parle avec nous. Il faut essayer de parler avec nous parce que nous, on n'a pas beaucoup de temps. Seulement on va t'aider, après on passe à autre chose. Pourquoi tu es, venu ici Je regarde seulement. Depuis lors, tu n'as pas allé chez toi

ndax buñ ñu bàyyi woon ak sunu sago rek dañuy dem wari ko ci autoroute bi te mën nañoo wër fii ba suba duñ ko gis waaye xale yi ñoo am cawarte gu mat sëkk ñoom ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci koñ bi ràññee ni Ziggy mu ngi fii ñoom ñu tuddee ko mulum mulum xam naa ni muy réactionné moom moo tax ñu utal ko tur boobu noonu parce que neexu la ñeme ñu baree baree bari ñemewuñ ko parce que boo laajee xale yi sax dañ lay xamal ni ñemewuñ ko parce que ni muy def mais xale yi euh, wax nañ ñu ni dafa gaañu ci tànk tànk bi moom metina parce que munu ci sax dox normal lolé tax nak association an taxawu ñu wéré di dina ko jël légui yóbbu ko feulé ci hôpital CTO ñu orienté ko hôpital psychiatrique bu Thiaroye ñu défal ko injection défal ko li nga xamanténi moy mooy soin yi ba stabiliser ko parce que instant bii nii nii nga xamanténi non la rechuté suñu ko yobbo hôpital yi duñ ko jël parce que mom tamit dafa xawa agressif mais buñ ko yobbo feulé euh médecin yi dinañ jappalé ci mom ba défal ko injection ba mu xawa amé touti dal ñu mën ko jël orienté ko feulé ci hôpital euh, bi nga xamante

amna naa ni buñ fa tégué suñu tank duñu rër wayé ni ni dañ koy jël yobbu ko siège social bu association taxaw ñu di defal ko entretien général sang ko topato ko taxaw ko dal di koy jël yobbu ko hôpital association taxaw ñu di ya Adama sen ni nga ni tay zigi ak ni ñu ko gisee won ba indi won ko taxaw won ko euh, ban différence la am ak ban message ngay lancer ñeël famille bi nga xamanteni ñom ñoy ay mbokam waaw mais tey jii moom am na différence parce que tey jii boo ko gisee gisaguñu tànk bi nan la mel nag mais on dirait que am métit parce que la fois passée ni mu sawaree woon ak tey jii ça fait deux comme ni ko Baye Pape waxee rek euh, ay mbokkam jéemoon nañu def benn premier pas mais depuis lors déggaatuñu leen léegi nag euh, incha allah bu ñu parewee ci liñ koy defal mooy sang ko defal ko yëpp toppatoo ko yóbbu ko hôpital gi nañ dem si ci cité avion incha allah Wakam jéem a xool ay mbokkam di ñaaxaat rek mbokk euh, malade mentaux yi ñu gën a jël euh, farlu si ñoom incha allah. jaajëf ya bi de ni ma ko gisee ni dafa mel ni ilaa maal dafa mel ne daal am na lu ne ci moom ñu def ko comme niñ ko waxee rek yóbbu ko xool ba xam nan lay demee. bu ñu demee ba mu sotti tamit ñu wër ay mbokkam suñ ko gisee tamit ñu téye ko mi ngi noonu jéem a yeggali faj bi quoi te yàlla rek a tax. ban waaw ñu téye rek gën ñoo jàppale rek te yàlla rek a parce que tamit malade yi nekk ci biir kër gi ñooñu ñoo gën a assuré que malade yi nekk ci mbedd mi parce que du ñu nekk ci sécurité mais bu ñu nekkee tey ci kër yi dinañu nekk ci sécurité plus que ci mbedd mi parce que mbedd du dëkkuwaay. sincèrement parler daal nañ ci jàpp rek te yàlla rek a tax. Samba ñëwoon nga keroog koy jël si ni nga xamante ni noonu la doon réagir mu leer la ni kenn mënu koo ñeme ndax doole ji bëri na te xadar bi bëri na waaye tey mu mel ni dafa mel ni euh, Euh, maanaam xarum yar ndax fekk nañ ko problème amul coow jibul ñun toog ci wetam deful benn réaction tey lan ngay yëg en tant que doomu aadama en tant que membre ci association taxawuñu tey ban yëg-yëg nga am ci ki nga xamante ne mooy malade bi tey ak lan ngeen yéenee def yéen lan ngeen ko yéenee defal. non malade Pape xanaa wax dëgg yàlla situation bu nga gis dafa métti lool parce que l'autre jour bañ koy jël si wax dëgg jour boobu man man ñebe ko sax parce que nu mu doon defee noonu mais tey moom boo ko gisee rek exactement gisee yaramam mi nga xam ne kii am na lu ko dal mais malade moom tey dañ koy jël dem sang ko yóbbu ko comme ni ñu ko waxee rek bu ñu ko soxlaa bu baax mais maa ñaan mboq rek bu ñu gisee vidéo bi dañ ko a woo dañ jéem a woote woote ñu bi moom kii genre malade wala wala lañ ko bàyyi daal wala lañ ko bàyyi dañ ko war a ñoom mais di leen bàyyi daal tout temps ñu circuler si yoon yi baaxul danañ danañ ñaan boo leen gisee vidéo bi rek jéem leen woote ñu yóbbu ko si saa ok merci ni ko Samba waxee lu am solo la bu ngeen gisee vidéo bi woote leen rek fu ngeen mënti nekk dinañ jël malaat bi indil leen ko même su fekkente ni woote wu leen ñun association taxawu ñu wéradi dinañ jël engagement ndeem waxoon ngeen ni moom mii kat mi ngi woon fële ca cité avion fële ci Wakam ñu bari ñoo xamante ne ay voisins lañ ñu dëkkoon ak moom xamal nañ ñu ni moom ci jàkka ji la daan nekk jàng na alxuraan ba wàccee kaamilu alxuraan foo ko mësaanee gis day bokk téereb alxuraanam kon tey buñ ko dee dimbali ci guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon defee nañ ko fi ñu ko war a defee tey defal nañ ko. ki ñu ko war a defal kon Seydouna Mouhamed jar na lu ne. ci yàlla te xam ne ëllëg yamal xiyaam jëf ju baax rek ay tax nga jàll yow ma liggéey ba ma dox toog sa biir kër ut sa njaboot te doo dox fa xoof ngi nii torox def la ay mbokk ndax feebaru xel bi yàlla teg tax ñu bedd ma génne ma seen biir ma nekk ci mbedd mi di dox yeneen allée yow li lépp yaa ma ko teg maa ngi nii xamatuma lu nëbb wala lu lu yeng wala lu jub yow sama waay lii metti naa ali ma teg nii tay la sa dund ci ay bàkkaar ni la ko jaral dakaa jaral ëllëg yombal xiyaam ay doy leen di xaar na lii lii metti naa lii koy soof ni na lii lii metti naa man na nga moytu bépp xeetu sinebar bu la mën a yóbbee bii feebar àndal rek sa xel la noot sa bakkan ndax ba génn wul waaye xam na nu bopp attan baaru say say Bunyi jangan nafsu nafsu Some man ya walk, nakale man, some a family. Lumo goody goody, in my life and on end. And out yo bu sama hell. Surf much it dog, get name sama That's some man ya walk, them man, some of family. Lumo goody goody, in my life and on end. So why? Le mai donne, le mai donne, donne, le mai sama birthday Man sama jabo takala man sama family Lomo gode gode timbade me life anane Say yalla way wa ta xel ci yalla te xamne ëlëk yamal xiyam jëf ju baax rek ay tax nga jàll yow mi ma liggéey ba ma dox toog sa biir kër ut sa njaboot te doo maa ngi nii torox def la ay mbokk ndax feebaru xel bi ma yàlla teg tax ñu bedd ma nekk ci mbedd mi di dox seeneen allée yow lii lépp yaa ma ko teg maa ngi nii xàmmeetuma lu nëbb wala lu faax lu weng wala lu jub yow sama waay lii nañ ci naaxaan ñu féetee à gauche na le na le na le nee nee

kızım o buldu bunu. Kaç. No, no, na batie kuna monfire beka nonga na batie kuna va appeler tonton dieu va appeler tonton dieu tonton fay xaar kon jarul listaxaar bàmmeel buy tàkk bay saxaar gisuma lu ko fi jar fii ci duniyaa du alal du kër du lu tax nga war a mën a tayle sa dund ci ay bàkkaar li la ko jaral dakaa jarul ëllëg yombal xiyaam ay ngërëm leen di xaar àndal ak sa xel danoo sa bakkan ndax ba jëliwul